mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen ànd ak Leral TV fii ci euh, Médina Niassène nekk euh, ci commune euh, bu Kër Madiabel bokk na ci li ñu war a waxtaanee tey jii mooy cérémonie officielle bi nga xamante ne amal nañu ko sànq ni tey jii si samedi bi mu nekk cérémonie bi nga xamante ne autorité yu bëri teew nañu ci bërëb bi ku ci mel ni xalif général des Niassène kii di Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass moom mi nga xam xamante ne moom moo présidé woon cérémonie bii lee euh, ba mu ñëwee sax jël na kaddu euh, ba ñuy ndar kap cérémonie officielle bi waaye nag kaddu cant la ak ñaax na nguuru Sénégal ci wàllum élection yu ñu dëgmal ci wàllum dal ci wàllum tànneef bi nga warante ne bi nga xamante ne moom la ñu war a def tamit aussi euh, ki nga xamante ne moom moo war a jiite Sénégal ci ay cinq ans ay juróom at yu ñu dégmal moom Serigne Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass ñoo teewlu micro Augustin Ka ñu ngi ñaanal senegal yii ñuy jublu si yal nañ ko weesu ci jàmm yal nañ ko weesu ci xam ne du dara du xuloo du dara tànn rek la man tànn na yi kii tànn na kii kii tànn na kii te ku nekk am nga ci liberté kenn waxul ne bu kenn ànd ak kenn ku nekk na tànn ku la neex ku nekk na ànd ak ku la neex ngeen jàppalente ndax ñoom ñëpp di xëccoo dañoo wax ne rek kenn ku nekk da ngaa gis ne mën ngaa def lu gën a baax li sa morom def loolu rek la ko defee nag booba waa ji wax na ko wax na ko ci biir waxam ci càppaa ca ah, yàlla mooy décidé yàlla mooy décidé ne kii la ah keneen mënu ci dara kooku lu yàlla décidé ñëw indi ko li ñu war suñ digganteeg moom mooy jox ko cëram ba tey ci wàllum euh, xibaar yi ñu daal di wax ci leneen ci li nga xamante ne moom mooy thème centrale bi nga xamante ne moom la ñu tab ren ngir waxtaanee ko Moustapha donc euh, Niass moom mi nga xamante ne moom mooy yor wàllum commission culturelle bi ñëw na bu baax a baax ci thème bi nga xamante ne moom la ñu tab euh, atum ren gi ba tax na moom it tamit aussi gannaaw ba mu jëlee kàddu ñaax na bu baax baax ngir ñu amal ab stabilité lan la ci élection yi ñu dëgmal la fii ci Sénégal ñu teewlu euh, Cheikh Moustapha Niass membre la ci commission culturelle di ñu teewlu ko ak Augustin Ka. complet wul na jamono bi ñu nekk jamono bu compliqué la jamono bu jaxasoo la dan na ba xam ne ñun ñi xam ne ñoo bokk benn kuréel muy kuréel lislaam sax ci suñu biir dañu dem bay boddante te boddante bi dara andiwu ko mooy ku nekk gëm na yow yaa am dëgg ku dul yow amul dëgg li nga nekk moo baax keneen ku dul li mu nekk baaxut. nit ki bu fekkee ne góorgóorlu na ci lépp loo xam ne mu ngi koy def mu sellal ko rek suba jàmm dafay am. moom lañuy ñuy fàttaliante ak jaam yàlla yi wala yeneen tasawuf boobu nga xam ne moom la mag ñi nekkoon moom lañ tabaxee société bi nga xam ne stable bi ci am ni ci ay at yu bëree bëri uteeg réew yi nga xam ne ñu ngi ñuy wër te gis ngeen nam mel ci ay yëngatu li ko waral mag ñoo xam ne tabax lañ société ci tabax boo ne dafa dëppoo jàngale yontu yàlla Muhammad bu ñu delloo si jàngale yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yar ci jaam yàlla yi tabax société ci loolu dafay tax nekk société boo xam ne ñooñu seen dënn dafay ibbeeku dañu mën a jëflante ku nekk jullit bi dana mën a dëkk ki nga xam ne du jullit ñu mën a jëflante jëflante bu rafet waaye te loolu mooy cosaani Sénégal Sénégal réew la boo xam ne mën ngaa wax ne quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañ waaye mën na ko xàmmee tey bu fekkee ne ñi nga xam ne gëmuñu lislaam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay yeneen diina wala sax gëmuñ sax benn diina euh, cinq pour cent lañ ci réew mi wala mbooloo ñëpp waaye feeñut dafay dellu si bi nga xam ne jamono bii ñu nekk naka jëkk dañ ko soxla woon waaye jamono bi lañ ko gën soxlaati jamono bi nga xam ne réew mi am na kuñ óolu woon dénku gannaaw boo xamee ne ñu bëri la ñoo laajoon danañ leen dénk ñi doxalal ñi doxalal ñi tànn kenn jox ko mu doxalal ñi muy jeexal ñu soxlaat ne nañ utaat koo xam ne dañ koy dénkaat suñu réew ñu bëri taxaw ku nekk sàllal loo xam ne man óolul leen ma man naa lii man naa lii dénk leen ma loolu nag ak xëccoo dafay ñëw xëccoo dafay ñëw ko xëccoo dafay ñëw nag liñ tam bi nga xam ne central bi buñ ci delloo problème du am. moom moo wax ne moom gëm na man na ba ne jox leen ma na sellal ci pas-pasam avant tout sellal ci jëfam sellal ci ay waxam ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo yaakaar ne man diw. war naa yaakaar ne suñ ko dénkee dana maa doxal wala diw laa wóolu diw moomu tamit ñi nga xam ne ñoo koy dénk nañ sellal seen wax nañ sellal seen pas-pas nañ sellal seen jëf. ba tey ci xibaaru gàmmu 2024 bu Medina Niassène euh, doxant ñu it tamit ba si poste de santé euh, bu Kër Madiabel 1 foofee nag ab consultation gratuite lañ daal di organiser tey jii si suba si moom ICP bi maanaam infirmier chef de poste bi ñëwaat na bu baax a baax euh, ci wàllum. jafe-jafe yi nga xamante ne euh, poste de santé bi mu ngi koy jànkonteel loolee gannaaw bañ doon amal ab consultation gratuite foofee ci bërëb ñu teewlu euh, Cheikh bay Thiam moom nga xamante ne moom mooy infirmier chef de poste ñu teewlu ko euh, ci micro Daouda Mbaye ak Augustin Ka ak Mohamed Thiam. bu ñu defee ay consultation yu ñu amal yu ñu mën a ràññee lu ci mel ni consultation jëm ci wàllu HTA mag ñi xam ne ñoom tension. am ñi nga xam dañu am wàllu épigastralgie mooy dënn buy lakk ak yooyu noonu ak xale yi di am ay jaare yooyu noonu mais aussi tamit am na si ñoo xamante ni dañuy am ay feebaru saqat te loolu c'est normal parce que ci taw bi lañ jógee di dugg ci noor bi di jëriñoo liñ bayoon ci àll bi yooyu dafay ànd ak ay mbir yoo xamante ni dafay tax lu mel ni ay jàngoroy sëqat dafay bari moo tax ma bëgg a taxaw foofu tuuti nii parce que fan yi boo xoolee ne sëqat bi bëri na bëri goo xamante ne ni li ñuy tuddee Covid 19 amoon na fi depuis les années 2020 mais taxul mu dem bàyyi daay man dafay dem di ñëw di dem di ñëw te fan yi nii nii dafa dem ba ñëw te dañuy seetlu ne man dama seetlu ñaari ñetti fan ci ginnaaw benn bës rek dama cee gis juróom-ñaari nit ñoo xamante ni am nañ Covid 19. na ay jafe-jafe vraiment ci jafe-jafe yooyu mën nañ ci lim saal boo demee ci maternité bi amul saal accouchement bu normal amul saal euh, amul saal suite de couche bu répondre norme yi amul aussi tamit salle d' attente hall d' attente amu ko amul bureau amul salle boo xam pour échographie la. comprendre amul hall bu mag moo xamante ni pour nit ñi fu ñuy xaar ak yooyu noonu loolu amul fii nii kon. Euh, fii jafe-jafe yu yu méngoog wàllu dëkkuwaay loolu ba léegi mu ngi fi ba ci sax boo demee ba ci logement wu sage-femme bi sax da ngay gis ne logement bi nekkul logement bu moderne te xam nga loolu ci ay jafe-jafe la bokk boo ñëwee fii ci infirmerie bi pharmacie bi ñu nekk defee interview bi nii nekkul pharmacie boo xamante ne nii bu répondre norme yi la dañ ko fi tegaale noonu noonu dëkk amul saalu gardien bon bëri ne daal ci wàllu ba ci salle bi nga xamante nit ki bu fekkee dafa ñëw daanu buñ ko fi ñu koy toog di koy xaarloo tuuti saal yu mel noonu sax amu fi. ni ki dëmb gannaaw euh, génn bi nga xamante ne Serigne Mbaye Thiam génn na ko euh, fii ci Kaolack ba wax lépp lu jëm ci wàllum euh, ñàkkum ndox bi ci commune bu Kër ma Madiabel ak dëkk dëkkaan yi nga xamante ne ñoom ñoo ko wër. Euh, ki nga xamante ne moom moo dëkk ci euh, dëkk bi ñu ne naan euh, Touba Niang Niang Gueye lay tudd moom it tamit aussi ñëw na indi ay firinde waaye nag weddi kaddu yi nga xamante ne Serigne Mbaye Thiam yëkkati na ko ci ne dëkk yooyu amatuñu benn jafe-jafe ndox moom Niang Gueye gannaaw ba mu ñëwee it ci gàmmu Medina Niassène ñu teewlu ay kaddu am ak Mohamed Thiam ak Augustin Ka problème mu ndox moomu nag nga wax tudd nga ci Serigne Mbaye Thiam ah, wax nga ne wax na ne problème mu ndoxu tuubaañaan Niane saafarawu na man nag maa ngi dëkk tuubaañaan di loon fay dund lu métti mais lu métti loolu ñu ngi wax sëriñ Mbaye Thiam na ko gaa ñoom andi nañ fa beneen tiwo mais ba léegi si tey ci suba ji tey bi may xëyee dama xëy ubbi sama robinet xelli naa ci bi ma demee ba mi di jot maa ngi amoon ay maçon yu nekk sama kër amatuma ndox dama yónnee jigéen ñi ñu dem ca teen ba root comme nin lan rootee di wax na téwo boobu wàññi na ci jafe-jafe yi lenn waaye saafarawut ko à cent pour cent ñooñu duñ ko dégg ñun def nañ fi doxu ñaxtu def nañ fi sitting lu ne def nañ ko pour ñu dégg ñu xam jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la ñuy dund actuellement ci jafe-jafe ndox yi nga xam ne nii moom lañu am fu ne ñu ngi ci huit puits yoo xam ne nii askan wi ñoo ko gasal seen bopp ak seeni i moyens bopp dërëmu état demul ca ngir jafe-jafe ndox yooyu ñuy am ñu jéem ko résoudre Flexio ñëw fi ndox mi doyatul qualité bi melatul noonu prix bi ñëw moom prix bi moom yaakaar naa ne àddina yëpp war nañoo xam ne loolu dafa jéggi dayoo ndax jugee ci 2000 francs wala 1000 francs jëm ci 12000 francs jëm ci 100000 francs am na facture boo xam ne ministre bi jot na ci 196000 francs la ñu facturé woon boromam. mbokk yi euh, si nañu ci euh, reportage euh, bës bi gannaaw ba ñu toxantwe ba ci marché. Euh, centrale bu Kër Madiabel ñu fekk fa ay jigéen yu bëri yi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllum njaay euh, jën légume ak ñoom seen ñoom jigéen yoolu les ñooñu le sax bañ leen tàllale suñu micro wax nañu lépp lu jëm euh, ci wàllum jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkonteel ci seen i njaay mbi ñoom la wax rek mooy nguur Sénégal daanaka beddina leen gëstu leen ci wàllum projet yi ak financement yi moo waraloon ñu koy sakku ngir nguur gi dimbale leen Pikine lépp lu jëm si ngir ñu woyal seen i activité yi ñu teewlu leen ci reportage bi ñu leen proposé. mu nekk ay jigéen yi nga xamante ne daanaka seen jàmbarte fokk nat weesu na fa ñoom ñooy daal di jóg ci suba teel ngir dem jaayi ay denrées de première nécessité foofe ci marché bu Kër ma Madiabel waaye ñiile jigéen ay jafe-jafe kese la ñuy jànkoonteel bés bu nekk ci seeni liggéey bi. ñëw di ut bagage yenn saa yi bagage sax duñ ko mën a am waaw bagage yi cher na marché bi daal métti na daal métti na ñun daal coono rek lañ nekkee wallaahi. daal maa si attaay sama xëyee daal maa ngi sant yàlla daal su ma ñëwee marché daal ne si attaay bi lawal deuxième koccaatu tuuti dem marché dem ñibbi kër ga. man xadi kebba mii de sa sanc abdou bige sanc euh, daaru raxmati bee am naa sama groupe am naa kayit waaye man man masaguma si gis sama bopp man waaw waaw gisaguma ci benn yoon sama bopp. lépp li nga xamante ne ñoom ñawlu nañ ko mooy seeraay marchandise yi nga xamante ne yooyu la ñuy faral di jaay foofee ci marché boobule te it duñ ci am benn bénéfice. rek ndax fu ne nii boo jëndee marchandise mu seer foog lu seer rek nga koy mën a jaayee waaw te fu ne tane nga am ci dara wala doo ci am dara. léegi ñàmbi bi léegi ah, nit ñi dañ ko aajoo te léegoo léegi nga gis saako ñàmbi 45 mille wala 40 mille. saako supame ay 30 mille 25 mille daa seer trop bagage yi moom daa seer moom métti na trop. ci ñi la jigéen bokk na ci ñi nga xamante ne dañuy faral di jaay ay jën waaye it ay légumes ak it yeneen condiments yi nga xamante ne ñu ngi koy jaay foofee te moo ne de amuñu ci benn ndimbal bi nga xamante ne moom mooy bàyyeekoo ci nguur gi. loolu waaye nag defaluñu dara ndax ci mbedd mi fii la ñuy jaayee ci ngelaw li waaye gisuñu dara. am na ñoo xam ne ñu ngi am ay procès am na ñoo xam ne nii amuñ. ñun daal wax dëgg ñu ngi nii daal sonn rek. waaw ah, bañ am na ci kay moom am na ci moom am na ñu koy def de moom boo bokkee si groupement boobu boo ca bokkee ñu jël sa dentité nga am ca. boo ca bokk di tam mun nga caa ñàkk am. maanaam ñun dañoo gisagut ko ñuy jege ñuy man di wax ak yow mu man ñi jàppale. waaw loolu daal mooy suñ tool looloo waral ñu daal di taxaw tem sàkku ci nguur Sénégal mu daal di dimbale leen ci financement yi ngir rek ñu mun a wëyal seeni liggéey. ku ñu jàppale ñu am luñ jaay financé ñi xaalis tuuti ñu am ndax luñ mën a jëndee. ndax booy liggéey te amoo ginnaaw doo dem suñ tool nii buñ ñu dimbale ci li ñuy liggéeyee. ñu jox ñu xaalis boo xam ne yow yaa moomal sa bopp xaas ba nga téye ko ñu financé la loo xam ne lu lu am solo la. ci marché bu Kër ma Madiabel ñoom jigéen yi dañuy faral di teel a jóg wutali li ñuy suturlu waaye nag bu fekkente ne mën nañu am ay ndimbal bi bàyyoo ko ci état bu Sénégal dinañ ko rafetlu bu baax a baax. jërëjëf mbokk yeeñ lii mee nekk lii moo nekkoon xibaaru euh, gàmmu 2024 fii ci Médina Niassène nekk commune bu euh, Kër Madiabel di leen sant di leen gërëm di sant Mouhamed Thiam mi nekk ci nekkoon ci régie bi Augustin Ka ci caméra bi ak Daouda mbay mi nga xamante ne moom moo coordonné équipe bi di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje euh, ni ki ëllëg ngir ñu jukki leen yeneen xibaar ci leeral TV leeral FM ak leeral point net